internet yu DKR 221 dal leen ak jàmm verdict bi ñëpp doon xaar verdict ba daal dinay wadd bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar coow li doxoon ci diggante ñaari député yooyu toog ci pencu ndawu réew ma te fare ci mouvance présidentielle bi bokk ca majorité présidentielle ñoom ñoo ñee nga xamante ne nag dañ leen a tuddoon ci wàllum trafic ñeel passeport diplomatique jàpp leen ne nag ñoom ñu ngi doon jàkkaarloo ko juge bi nege ni tey jeudi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru mai atum 2022 ka ca njëkk di Boubacar Biaye ak kii di Mamadou Sall ñoom ñaar ñooñee ñëpp nag xam nañu seenu ëllëg ca dossier boobee néegi ni tey ba ñu jàkkaarloowee ak juge ba jàppale ni nag kii di Mamadou Sall daal di nañ koy tëj ñaari atu kaso yoo xamante ni juróom benn weer ya lay daal di tëdd ka ca des daal ñu daal di koy dóor ñaari atu kaso yi nga xamante ni nag juróomi weer ya képp lay daal di tëdd bu ñu sukkandikoo ci ay xibaar seenu verdict ba ñu ko dal di prononcé rek ñu ngi leen di toppee lépp lu jëm ci wàllum association de malfaiteurs escroquerie frauderie blanchiment de capitaux trafic de migrants ak faux usage de faux en écriture privée de banque ci benn document administratif boo xamante ne nag daal di nañu koy xaatim ca waxtu boobee nag jàppale ni coow loolee ci fàttali moo waraloon ba activiste bi nga xamante ni nag moom moo di kilifa di Landing Misan Seck mi nga xamante ni nag tegoon nañ ko loxo daal di ko yóbbu ca diwaanu Ndungu Siin ginnaaw activiste Y'en a marre boobee moom ñu daal koy topp daal ne complice la dem sax ba di ko filmer Thiam ci ay vidéo yoo xamante ne nag gis nañ ko muy laaj ci li nga xamante ne rek moom moo di xaalis ak di jëflante ci wàllum xaalis ñeel passeport diplomatique yooyee ana kan lañ ci tuddaat ñu daal ne Simon Simon mi nga xamante ne tamit moo nga bokk ca Y'en a ñoom ñooñu ñëpp tuddoon nañ leen képp yóbbu leen ca nungu siin saa si le tembe nag ñu daal di am ab liberté provisoire jàppaleen ni nag ñaari député yañ ca tuddoon te ñu faree ci majorité présidentielle bi nege ni tey daal dina ñuy